coronavirus bi gannaaw fi mu ñëwee tombeek xew-xewu diine yu bari gannaaw déclaration bi nga xam ne sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarimal axla jotoon na ko def tey jii ngir yërëm taalibe yi waaye itam ak jàngoro ji nga xam ne moo di coronavirus nga xam ne dugg na ci réewum Sénégal gannaaw loolee nag sëriñ Abdou Karim Mbàkke defaat beneen déclaration bi la yoon nag tey nag mu xam ne ne yaakaar nañu sëriñ Tuubaa wóolu ko kon nag jamono ji ziyaar yi mën naa tàmbaliwaat joxewaat na ndigal képp koo xam ne bëgg ngaa digganteeg Serigne Abdou Karim Mbacke. asalaamaaleykum wa rahmatullah ci suba defoon naa waxtaan woo xam ne euh, la taxul ma def ko sax waxoon naa ko ndax ñi dama waxoon ne ñi ñëw fii ci mbooloo dañoo takku tey jóge fu ne di dellu fu ne te xew-xew yi nga xam ne moo xew di ay tawat yoo xam ne dañoo wax ne yu gaaw a wàlle la te diis lool moo taxoon ma wax loolu waaye euh, dama cee dellu gannaaw ca wax ja ndax xam ne euh, nun taalibe yi sunu yaakaar ci yàlla ak yonent bi dëggale ko sunu yaakaar ci Sëriñ Tuubaa dafay lu loo xam ni dara waru ko rax dara waru waru noo jaaxal ba tax na la ma waxoon ne nit ñi ñu ñëw nañu toog ba jëmmi jamono euh, génn naa ci ku bëgg a ñëw ñëwal niñ daan ñëwee li ci nekk mooy sunu yaakaar di Cheikh Amadou Bamba dana nu dimbale ci barkeb kii fi nekk di sëñ Cheikh Mouhamadoul Mountakha ba jafe-jafe yi ci jàmm rek lay mujj Sëñ Tuubaa ëpp na loolu kon nag loolu rek moo tax ma ne ma defaat beneen waxtaan muy bii ku bëgg a ñëw rek ñëwal niñ ko daan defee bu ci dara soppiku maa ngi toog di leen ni ma daan tooge fas yéene jëflanteeg ñoom ni ma ko daan ni ma ko daan defee rek dara du soppiku ñoo ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi ñaanal si boobu mu yàgg fi bu baax a baax a baax noo ngi toog nag di uh, néeg bisu sëriñ Fallou bi uh, tey ñaan mu ñëw ak jàmm yàlla ci jàmm uh, li ciy nekk mooy kuy ñëw rek li nga xam ne mooy cet gi ñuy wax ak ni ko docteur yi waxee nga sàmmonteeg loolu rek loolu rek a ci am solo waaye ñëw gi moom bu ci kenn am xel ñaar ku ku na nga daan ñëwee ak la newoon ci sa xalaat ba ba ngay ñëw loola moom na nekk ci yow ba rek bu ci dara jóg jërëjëf. kon nag li lëntoon bopp ñëpp léegi leer na sëriñ Abdou Karim Mbàkke xam na ne màggalu Kazu Rajab gi mu ngi xaar ñëpp ni ñu ko doon defee waaye itam di gën a soññee ci wàllu cet gi ñu bàyyi ci xel coronavirus bi gannaaw fi mu ñëwee tombeek xew-xewu diine yu bari gannaaw déclaration bi nga xam ne sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom makaarimal axla jotoon na ko def tey jii ngir yërëm taalibe yi waaye itam ak jàngoro ji